Tidiane Faye bu Lansar ñu koy woowee le professeur. Mm-hmm. wax daje ak Paul Maurice. Mm-hmm. le grand technicien. ñaari mbër traditionnel. Mm-hmm. ñaari séeréer. raar na ci làmb muy am ñooy daje nii. moo tu vas voir combat bu neex lay doon. combat ba mu accrochage combat boo xam ne combat technicité la ba pare ñoom ñaar. ñuy bëre ku nekk jiital sa pied droit. Tidiane Faye seen wàllu ndeyjoor takk sengoor gi wax ci ndigli. jiital pied droit Paul Maurice ba tey seen wàllu càmmuñ. ngemboo ngemb lu weex li mhm. jiital pied droit d'accord avancement ñu dem ñi lewtoo Tidiane Faye gros plan mhm. en pleine forme Paul Maurice sànni direct sànni crochet topp ko ay coup de poing Tidiane Faye taxaw di ko xool xoolal le mhm. technicien Tidiane Faye aha li la bëggoon eh waay xool na biir di ñaan bi ba ko premier ministre toppee di ko rafale ko dafa wàcc na ko sirip premier ministre tam comme que bëri traditionnel la mën comme ki nga xamante ne moom mooy Tidiane Faye premier ministre dafa wàcc di ko góolu Tidiane ko foofu d'accord avancement dem ñu commencé la bagarre nag ah. waaw dañu commencé timidement. Mhm. pour Maurice bëgg commencé attaqué ñaan histoire. d' accord xam naa naan Tidiane Faye mënut a dóor. naa ko duma da koy si gi taxaw Paul Maurice ah. et eh. à chaque fois nag. Uh-huh. Paul Maurice bëgg a dóor Tidiane Faye Tidiane Faye ñëw song si ko. Polomoris féetewoo la bagarre Tidiane Faye bëgg a féetewoo la lutte mhm. xoolal kurpeñ bi nga xamante ne moom la Polomoris sànni Tidiane Faye xool ko ba kurpeñ bi romb lan mooy ci topp léegi mhm. xamaguñ ko vamoncement wa ñu dem ba tey mhm. ñaari mbir bëri simple bëgg Tidiane Faye seen droite ba tey Paul Maurice seen côté gauche combat bu yàggoon na ku nekk lijjanti combat bi faama dem à gauche kii dem à droite timidement combat ba xawoon timide yenn saa ñu def étincelle des fois ñu bàyyi Paul Maurice di approché Tidiane Faye ko bàyyi fa ko bàyyi combat bi ak ki nga xamante ne mooy Paul Maurice mais taxaw nag ci ay gàddam Paul Maurice sànni direct droit Tidiane Faye gën ko approché loolu mooy su def rythme ci combat bi xa Tidiane Faye ko direct ci foie bi Paul Maurice tonton Tafa bëri ñëwul na yàgg parce que ñaari ñoo xamante ne mhm. dañoo bëggoon dóorante gis nga léegi coup bi Tidiane Faye sànni Paul Maurice Paul Maurice xaw a daanu presque daal trébuché aha Tidiane Faye nag. songante nañ nag. non Tidiane Faye lii la soxla woon ci combat bi. d'accord moom lii la doon woon sànq ba tey. loolu lu wut mooy jàpp ca ñaar jël ñaar loxo jàpp ci tànk ba carrément. song bu mat nag mi ngi nii faama. amul benn wenente song mënut weesu jël say ñaari loxo boole ko ca ñaari tànk waaja jàpp ko fu mu ko war a jàpp encore fa kiis ba jeexee fa la kii nga xamante ne moom mooy euh, euh, Tidiane Faye. jàpp. bi ko topp nag faama moom mooy Paul Maurice lu muy def yi Paul Maurice dafa bëggoon a jël bopp bi. waaw bopp Tidiane Faye. bës ko pour def ko li ñaan penk xool loxo Paul Maurice fu mu jëm. ok maanaam tey pour Paul Maurice bu réussir prise bi prise spectaculaire nga ngay gis. waaw waaw bu riche mais soog bi fii amuñu ci dara luñ ciy wax au bon moment fi fi Paul Maurice démarré dóor si fële Tidiane Faye wàcc jàpp ko jàpp bu mat sëkk bu amul. benn des benn werante. Mhm. ba mos ñu dem ñu xandaalu oh! lan mooy kulu combat bi fii mooy oh. mooy naka Tidiane Faye bàyyi lépp rek daw si laxas ci ndigg la mhm. loolu moo jëre wax maawo loolu foog mu leeral ko gars yi baax a baax daan na ko moom ah non non jël mu ko daan dafa set rafet waaw xool ma sirip muy bël feel bopp di di di bëre ji mu bàyyi ci xool Tidiane Faye bàyyi fa mu jàppoon lépp seetu laxas ci ndigg la wëndeel ak moom def benn tour complet ah bii de jël bu set bi ci la. boo amul ah benn wérén xool xool si song ma song war nga am solo. waaw ah. ba pare lépp tout est songu jàpp tànk waa di bëre. bàyyi tànk ba laxas ci ndigg la wër ko. xoolal fa Tidiane Faye bàyyi ba bu def ànd ak moom cercle daan ko jël bu set wecc. bu amul benn benn benn